également coppite yi ñu gis ci li nga xamante ni euh, moom moo di euh, suñu euh, wàllub défense yeeg sécurité bi ak yu ni mel ci euh, njiit ki di le nouveau ministre des forces armées kii euh, di général Birame Diop waa euh, Birame Diop général de corps aérien ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises 2020 2021 tey actuellement moom moo nekk ministre des forces armées ki nga xamante ne également moom moo di Jean <laughs> Martin Faye Martin Faye remplacé tamit ki nga xamante ni moom moo di général Moussa Fall sa gis-gis par rapport ak coppite yooyu non ñun xam ñun ñun armée amuñu ci problème parce que ñun dañu am suñu pudeur am suñu taxonomie même si les politiques on des sentiments et des pensées nous ça ne nous intéresse pas parce que ñun on est bien organisé et booy jël ci ñun ngay jël xam nga armée munoo am général beneen civil boo jëlee feneen booy jël ci gendarmerie ngay jël ñun lu ñuy intéressé ci gendarmerie nos grades sa s'arrête au grade de colonel suñu grade gendarmerie colonel lay am président de la république moo ci xool ku ko neex mu nommé ko général donc à ces postes c'est le, le président de la République ne peut pas nommer un colonel dans un poste c'est le général qui nomme au poste de civil et militaire c'est parce que militaire boo déggee ñu koy wax mooy ay chef d'état-major de l'armée les chefs de au commandement de la gendarmerie et leurs adjoints la mën a nommer ak le grand chancelier loolu la mën a am pouvoir yeneen colonel yi mënul leen dara. am na ñu doon xaar quand même à ce poste le colonel Cheikh Tidiane Mbodj. mais kooku qui est l'un des alliés de de de de. waaw mais kooku il est politicien mais mais politicien mais kooku ban poste lay jël chef de lan ci ministre des forces ah mais il fallait ñu essayer ko ñu xool après loolu la c'est-à-dire bu ko neexoon mu nommé kooku bu ko nommé woon aussi léegi quel est problème s'il y a quelqu'un qui n'est pas content tu fais un recours en annulation de sa nomination nga nga évoquer des motifs. loolu la Sénégal di doxee xam nga yeggaguñ ci foofu ñu bari dañu ko fi def nit fii Sénégal mën nañ ñoome nit nga def nga def recours en annulation avec des mu dem léegi cour suprême problème am c'est comme ce que tu vois à la RTS là il y a des qui peuvent faire des recours mais ku ku nekk ak ni nga gisee sa àdduna c'est-à-dire fii ku fi bëgg ñu nommer la da nga téye sa nopp téye sa làmmiñ ba pare pour ne pas être attrapé par le passé fii boo bëggee ëllëg gis nga réew boo ci nekkee bëgg a tekk ci réew mi da ngay da ngay légal loyal far du tax ngay wax loo xam ne taxawul yanuwul maanaam parce que ëllëg day am vice de forme pour nga mën a jël poste boobu donc maanaam la on ne euh, nommer devant euh, de, la tête de la de l'armée et de la gendarmerie que des militaires en activité maintenant nag ministre même man bu ñu ëllëg sama benn jour bu keneen ñëwoon di sama waay mën na ma nommer ministre de l'intérieur y a rien qui s'y oppose mën na ma nommer ministre des forces armées y a rien qui s'y oppose Birame bi ñu nommé des forces armées il était chef d'état-major général des armées et il a été apprécié sur le plan social yaa ngi may dégg il a été bien apprécié sur le plan social donc voilà que si le ministre des Forces armées il de l'armée il n'est pas chef d'état-major de l'armée donc lui il administre sur le plan civil ah l'armée nationale et il connaît les difficultés inhérentes à l'armée euh, au ministère des Forces armées il connaît la condition sociale des hommes ah mm il connaît les impératifs de sécurité donc il est très indiqué et le retour de Jean Baptiste en tant que ministre de l'Intérieur Jean, retour ou pas Jean n'était pas dans ñu bari dañ bàkkaat ci Jean Jean amul c'est pas un mouchard Jean Baptiste ni nga ko gis noonu nitu neen la du wax du dugg ci wax da la maîtrise trop bien billaay jabaram sax est kër que na maa xam ko Jean je te jure Jean c'est mon propre frère papam était capitaine de gendarmerie ma nekk élève la buy wàcc jàpp sama loxo dama vene ma génn a ñu dem kër ga Jean di def seconde je ko ne bien xam naa am éducation ba entretien ko jur da koo yar <laughs> pas entretien boo ko jur da ko yar on était ensemble muy ñëw ci ñun bu ñu paree ñëw ci chambre yi ma xam ko bu wóor mu nekk gendarmerie boobu ba tey ma di ko coacher di ko xool dama ko xam Jean n'a pas de fait de il n'est les dispositifs de retour et de de de de revanche ni de quoi que ça ba mu génnee fii dem Russie Jean ci la ci pare bañ ko wàccee commentaire man bañ ko wàccee ba bañ wàccee wàcc ñun c'est pas notre problème. il était au commandant de la gendarmerie l'autorité qui était là la moo xam yan sentiment argument la ce n'est pas son problème kër bi nga wàccee man dem naa ba këram réglé wu ko dafa dem toog fa mu toog. mais dafa am ñu jàppoon peut-être proximité am ak Ousmane Sonko. moom mooy li nga xamante ni moo di wàccee Jean-Baptiste n'a aucune relation avec il ne parlait pas avec lui il n'a rien réglé avec lui c'est eux qui ont voulu des cadres des gens capables de faire un job ñu jël Jean-Baptiste Jean n'est il n'a rien fait lu dul ngorom la am dem toog fa mu toog ñu jël ko indiwaat ko bis ñu ko fi changé waatee mu dem ca la mu nekkoon il n'est pas dans le matérialisme lui il n'est pas dans cette subjectivité donc moom vie pour mu normal dafa yomb Parce donc, donc, même si vous n'êtes pas avec Sonko, d'accord, quand tu choix m voilà non, c'est bon. Du gouvernement, mais, mais, je veux dire. Oui. oui. je veux dire, par là, le, non, le duo, là, le duo Ousmane Sonko Diomaye, tu dit d'accord dans ce la nomination, oui, nomination nous, on a, là, nous sommes dans un état quand même de droit, nous sommes des man mënuma toog man en tant que personne logique di défendre les institutions étatiques di défendre ay gendarmerie police les magistrats les administrateurs civils parce que xam naa qu'est-ce que cela signifie mënuma man di contre ñu nommer des gens valables parce que c'est des c'est des sénégalais léegi ku problème boo xam ne sa kii mais on le sait on te dégomme celui qui montre de l'incompétence on t'enlève mais mais on était on ne pas d'accord avec eux s'il avait certains mais heureusement qu'ils ont nommé des gens yoo xam ne quand même ils n'étaient pas dans la grande dans le comment on l'appelle dans le discours comme comment on l'appelle là donc ces gens qu'ils ont choisi c'est bon mais tu as vu que quand ils vont continuer à nommer Sénégal rek bu yàgg nga am problème. <laughs> moom. boo téyewu toujours de également oui euh, RTS 1 à la tête problème euh, RTS bi. Pape Alé Niang gis naa di mais gis nga li tax gars yëpp dugg ci xam nga qu'est-ce qui se passe. C'est seulement la posture de Pape Alé Niang qui va compromettre son sur ça. entre nous y' a pas autre chose. xam nga mooy comme ni mu doon attaqué rek di wax xam nga aussi pour nga nekk kilifa ci benn institution mën a yilif ay nit autre il faut pas que ñooñu auparavant nga am loo am ak ñoom problème xam nga loolay problème bi. xam nga affaire RTS boo boo ko diaboliser ba mu ëpp. te muy te muy sa alal xam nga booy politique bu ñuy politique ak di contre dañuy fàtte ne alal yi ñoo ko yow bala ngay rendre compte ne yow lii nga doon def ni yow dugg nga ci kàmb gi mooy bis boo faloo xam nga boo faloo da ngay jékki-jékki gendarme ñëw ne garde bu nga gis ministre euh, yi garde bu magistrat yi garde bu sëgg mais foofu ngay naan mais man lan laa dugg ni lan la man ñi ma doon waxal dootoo mën a xool kenn xam nga loolu mooy mooy problème mu RTS bi loolu mooy vice de forme bi xam nga vice de forme day am quoi vice xam nga vice dafay am xam nga même góor sax la waroon takk nga xas ko am na nooy xasee góor wala nga xas ko jigéen ëllëg dootoo ko mën a takk bu mm-hmm. xam nga wax baaxul làmmiñ c'est-à-dire le parole le verbe moo tax tubaab daan verbe pour certains l'artiste avait juste besoin d'un bon manager et que soxla woon peut-être tey ji un professionnel en tant que directeur ndax tey ji da ngay da ngay partager euh, cet avis euh, bon li ngay wax il fallait chercher un mel ne ay artistes il faut être très prudent des histoires de DG là parce que après c'est eux qui va retomber gis nga un état ce qui va te biaiser ce sont les corporations professionnelles RTS déjà bu demee ba foofu gars yi dañuy wax ni di dem mais boo duggee euh, comme par exemple je donne un exemple man tey bu ma doon bu ma doon président de la République RTS je donne un exemple regarde-moi ici. oui RTS man je prends un Moussa Sarr un gosse très discipliné un gosse normal quoi boo xam ne dafa discipliné calme xam place xam place mag xam logique. mais du ci du ko commandé man sama boy du question sama waay la. du question boobu mais il faut nommer des gens comme ay Moussa. Mhm. xool ba yaa ngi may suivre fi. parce que yooyu.